waaw Mody di la tour bi euh, di coordonnateur pour le moment club des volontaires sénégalais pour la protection des animaux et de l'environnement. xalaat bi de defe naa dafa judd rek ci peut-être xëy na benn constat bu ma doon def ci dëkk bi xool gis euh, animaux yi di ko dund surtout les animaux de trait yu mel ne fas yeeg mbaam yi yenn saa aussi nga romb xaj ci mbedd mi macha allah daal kenn du ko fulaal kenn du ko fay daal. noonu daal la juddoo am ci ñeewante lool am ñu ma ci jot waxtaanal nag ba ñu ne daal kuréel bi nañ fexe nuñ ko tax liggéey bi de dañ koy def yëfi mbooloo rek kenn ku ne incha allah nga apporter ci sa xam-xam ak sa doole nu mu mën a nekkee bu dee sa poos la nga indi ko bu dee sa xalaat la nga indi ko bu dee sa doole nga indi ko ñu xàccandoo doorandoo am naa yaakaar ne fi ñu bëgg a àgg dinañ fa àgg. loolu moom mooy objectif bu njëkk bi sax parce que it xam naa ne du yomb. mais il faut aussi ñu njëkkee sensibilisation bu ñu paree ci sensibilisation yi amul njëriñ ah ñu jéem a xool li yoon may parce que nag euh, am na ay euh, loi yu fi nekk yoo xam ni dëgg-dëgg application rek la manqué mais ñu ko toppoon xëy na li bari ñu fi gis ci maltraitance ci jëm ci wàllu mala yi dina fi jeex waaw léegi nag ñun loolu la ñu bëgg def suñu cheval de bataille fexe daal ba loi yooyu ak arrêté ministériel yu fi nekk ñu xool nu ñu ko appliqué ba vraiment sooru mbaam yeeg fas yee yi ñu leen di teg yu metti yi mu daal di fi deñ waaw waaw parce que it booy loo gis lu ne rek dina am fu mu dooree waaye bu ñu nee sénégalais rek mooy dañoo bëgg mu law ba ci biir réew mi amaana nag du nekk lu yomb mais li ñuy wax rek ndànk-ndànk di nga dem ba àgg fi nga bëgg jëm solo si mooy bu ñu defee ñu gis rek nit ñi dinañu adhéré waaw mu bañ a mel ne comme yu bari yi fi xew créer association rek toog jàpp sa njàmbur mais bu ñu defee loo xam ne nit ñi teg nañ ci seen bët gis nañ ko ah dina leen jaral ñu ñëw bokk ci combat bi. ci ngay jiitu parce que aussi xëy na cause yi koy waral dafay bari surtout social am na ñi nga xam ne aussi wax dëgg yàlla seen loxo dadul dul jot seen ginnaaw te xëy na doom jooju ñu yor moom la ñu yaakaar pour euh, mu mën a jël sareet bi takk ko dem ca marché ba wala dem ca liggéeyukaay ba indi dara yàlla xam na ne démb démb rek maa ngi gis ñaari xale yoo xam ñu ngi yor sareet. ñu ngi sëf mbaam bi loo xam ne kenn ki dafa obligé toog ci brancard bi pour mbaam bi mën a stable ma ne ko est-ce que xam nga ne li nga yob sa mbaam bi dafa bari mu ne ma xam naa ko kay ma ne ko léegi bu kiiween mu ne bu deewee ñu sànni jënd beneen xale boo xam amul sax 15 ans loolu da toon bu deewee ñu sànni jënd beneen nga xam ne kooku inconscience moo la àndal parce que xëy na ña ko yar wala boog millier ba muy dundee xamul xamuluñ ko importance su mala dañ ko jàppee benn jumtukaay boo xam ne rek bu boo defee sa soxla faju bu paree nga jël sànni moom loolu moom pour être honnête jotuñu ko woon euh, def parce que temps bi daf ñu xawoon euh, njatt tuuti parce que dafa nekk loo xam dañ ko reporté à deux comme que ñi ngi dem vers l'ouverture des classes ñu ne woon nañ ko nañ ko def nii rek de façon sobre ba prochainement xëy na dinañ am yeneen occasion yoo xam ne dinañ convier ñëpp même s'il le faut sax ñu sol suñu dàll dem seeti leen donte sax am na association yi nga xam ñu ngi fi woon bëggoon nañ leen convier mais malheureusement aussi jotuñu woon am temps bi xëy na ñooñ ñëpp itam dinañ sol suñu daal dem seeti leen waxtaan ak ñoom parce que it ñoo njëkk ci terrain bi xëy dañoo bëgg a ñëw rek ñoom lañuy def ñu renforcer leen ci bokk liggéey bi bépp sénégalais rek bu am 18 ans je crois taxi moo ci nekk te nga xam ne wax dëgg yàlla lii euh, mala yi di dund yaa ngi koy yëg mën nga caa bokk te it dañoo yemul sax nag ci mala parce que dañ ko rek euh, tuddee club des volontaires sénégalais pour l' assistance aux animaux et de l' environnement mais boo nee environnement te gis ñi nga xam ne ñu ngi fii boo leen xoolee gisale leen ak mala li leen wuutale mais kii ñaari tànk la yor kii ñeenti tànk la yor muy ñi nga xam seen xel neexul ñu bàyyi leen ci mbedd mi ñuy taxawaalu gauche droite tey wax dëgg yàlla amul benn assistance bu ñu leen apporté loolu dafa bokk suñuy objectif beneen ba ci topp itam bokk na ci mooy jardin public ñu ngay gis tey boo ci romb teg ko dépotoir d'ordure te li ko taxoon a jóg daanaka xëy na dañ koo bàyyi te it kenn mënu koo defar lu ñun bokk na ci it mooy euh, déforestation bi du ma ne déforestation mais garab yi nga xam ñi ngi woon ci dëkk bi yëpp yaa ngi gis léegi ñu koy gor boo jëlee exemple tey yoonu mbuur bi dama fa romb keroog naaj rek laa gis parce que tali bu ñuy élargir moo tax ñu gor garab yi yooyu yëpp bokk na itam li tax a jóg ak xale yi nga xam ni nekk nañu fi itam nga xam ni li leen bàyyi ci mbedd peut-être du jàng du jàng daara du jàng école mais yeneen yeneen cause la yooyu it fas yéene nañ cee taxaw fas yéene nañ taxaw it tamit ñi nga xam ni ñi ngi seen biir kër feebaruñu duñu déggal duñu mala duñu ay nit ñu wérut mais yàlla def na seen loxo jotul seen ginnaaw te ñi ngi dund jafe-jafe yoo xam ne wax dëgg yàlla mënuñoo jóg taxaw ci mbedd bi. mais tool bi yaatu na lool dañ ko euh, objectif yi ñu élargir la. waaye wax ngeen ne ci biir salle bi loo gis moom gëm-gëm. ak absolument absolument parce que it buñ ci duggee te gëmuñu ko nañ dem te di nelaw. waa parce que au début it bi may jóg ñuy toog di ci xalaat bari na ñu ma ne sa objectif seen objectif yi rëy na. man ne ko waa nañ ca def lu ñu mën jéem ba tële moo gën toog fi nga toog bañ a jéem pour man jéem tële du gàcc te am naa yaakaar itam tële du ca am parce que nañ def rek petit à petit li ñu mën ak ñi fi nekk bu ñuy sóob ndànk par ndànk ndànk par ndànk am naa yaakaar yàlla dinañ jàppale ba lépp li nga xam ne sumboon nañ ko ñu àgg ca